asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokku téléspectateurs yi tey nag xam ngeen ne saison bi ubbi na waaw saison bi daa ubbi tey le 10 octobre 2021 rent DKR rek ko ubbi yaa gis gaa yaa ngi dugg si mbokk maa ngi lay ziar na moon ngeen na namoon nañ ko moom. ndeysaan tur bi nan la. Matar Gueye. Matar Gueye waaw. Matar ba ci. ndeysaan xulle boo xoolee làmb ji daa mel ni gars yi dañoo namoon làmb ji kaay kaay. Wassin waa lan la looy coow kii lu muy wax nii. nga bu wax mu ne caatu Jolof. trois combats trois victoires namuma dara xale yi di ma wër ñii ay tapet lañ ay. Wassin Touré mais kii tapet la daa ruux avance bi tapet la. Wassin Touré dégg naa da ngaa daw. waaye xule ma ne la li may wax ragalu ma ko kii bu ma jëlee man tubloo ko ay mbokkam eh, bu ma jëlee man tubloo ko ay kii kenn xamu ko kii kenn xamu ko man ci quatre combats laa bëre quatre combats kii bu ma jëlee ma duma ko doo tous wala am na trois victoires man ma maa ngi ci trois victoires benn machine seetaan nga ma fii kiiru dara jaata jolof bu ma jëlee ma duma la yow kii bu ko tàncee lambe lambe di pambaay la yor salba ndog li ngi xule dëkkante baa ngi ki deru gerte la sangoo jolof jom la fooraa la dëgg ragalul loolu da yor xaalis. mooy caatu jolof mooy loolu. fii sa booy kere. barki alxuraan yow xam nga bu baax. lekkaru mbéy ga maa bëri woon combat maa caatu Morola fat fat ma daan ko caatu kay ree Morola borom top maa ngi nii na jarul wax ju bëri kii laa ko waxee kii buñ ko tàccee tukuj tukuj takka tukaare caatu jolof kase kii mooy borom dal bu dal ba dal ba ca des ñut fu ñu jaar caatu jolof fu mu jaar ku mooy doomu tarke bu la ko la dul càng di nga guddee kii amul lu ko gàttal wax ji lu ko gudd ko gàttal caatu kayree ngi nii yow doo def dërëm. caatu mi ngi nii yow xam nga caatu kayre du. du eh, eh eh bu yow du xam nga ma. yow seetaan nga ma kii du ma moromam. Babacar ñëwal jàmm nga seet si ma. billaay damaa xew si ay sama papa ragaluma dara. trois combats trois victoires Babacar ñëwal jàmm gën booy maa leen gën a neex fu waaw ma ñëw seet si saatu jolof jàmm gën booy ping pong lañ foo nekk lamsaar nga ne wala jàmm gën si gam mbaaw yaa ñoom lis njaago moo bokk igiri maay caatu jàmm gën maa fu xale bu ndaw trois combats trois victoires na ma gars yi seet si dara. na tubal fee suuf jox ko fee suuf tubal eh, waaw Laurent mais Laurent da ngaa xew ci réew mi. billaay non lépp yàlla la du sant yàlla rek. après dinañ def émission yaatal. dama la am lu ma la bëgg a laaj. lan la Laurent bëreegul. waaw mais yàlla dogal na tey ñëpp naan Laurent Laurent Laurent. naaj yàlla ànd ak man rek tey. te sant yàlla bu wér. waa ji noo ko daane. xaw ma ko sax. bilaay. borom njaareem. daane ci géew bi. waaw waaw. man booy la. bébé guy gi suma rakk la suma lépp la. bébé guy gi mook Pokola. ke da laa sori. waaw damaa sori mais li muy coow nii laa bëggul quoi. eh. Babacar Babacar eh. eh Babacar eh. Babacar eh. eh Babacar. eh Babacar eh. Eh. bëgg mu kii dama ko yéene ndam da ngaa yéene booy bi ndam su ne la daanu yàlla naa daanu kii dama ko yéene ndam lu tax nga wax loolu sama rakk la dafa maa bëgg te tax waaw barke suñu baaba dafa maa bëgg te tax ndam rek ko yéene ndam rek laa ko nga ñëw war a bëre grand ma combat bu bëri coow ñëpp ñu séeréer sànq ci ginnaawam loolu jaaxalu la wa man tamit séeréer sànq sama ginnaaw de ah, séeréer xeet la laaj naa la ko wax ma ko séeréeru siin séeréeru saafeen séeréeru ndox yi séeréer morom la waa séeréer ñaari séeréer lañ. bëri na waaw man mën a génn ci séeréer. yow boo ci doon. man bépp la ndax man maa maay bawal man maa njaaral maa ndoos yëpp man bépp séeréer la. kon ci grand bañ dara. pour la pour la pour la. combat naa gaaw. li ma doon tiit weesu naa ko mooy màggal Tuubaa gi ñëw te aw ma xéewal yu ma bernde te bernde naa taxu weex. amul xel mi dal ñun lu mu am lu Cheikh Rafal amul bëggunu barke Cheikh Ibra ñun ragaluñ lool. ragaluma loolu. mu ngoogu ndeysaan maa la bëgg nag. bëli mais Abdou waxal. Abdou waxal tey da nga andi mbër de. waaw waaw dama andi champion bu mag. jóge Diofior ba fii jëlee Boeing 504 euh, destination de Diofior wàcc si Ndakaaru fas yéene jëlee ndam bi yóbbu ko foofu. tiitoo ci Pape tiit lan kii nag xale bu ndaw dina yor xale bu ndaw yor cinq champion bi nga xamante ne dafa tëj liste bi nga boole ko ak kii am looy ragal amuñu ragal de. tiitoo barke Alaaji Fallu Mbake. koo koy waxal. waa Ibu. ana waa Diofior. waa Diofior ñu ngi foofu. lom da Diofior. waaw googa yaaga dogal. man de lii ngay nga ma caabal ma soccu ci man. waaw si abak soccoob lan la. kii dañ ma jox rek. dëkk ba la jógee xanaa. waa Ndenga Weer ñoo ma ko jox ko waaw. waa Sanjara. waaw. kon bagage yi fu mu jógee de. ii daa combat bi nii. ay Sanjara. ondi nga daf ko jógoo sérieux. ay ganja faama borom jom mbaato ganja ni nii xale waa ngi nii phénomène bi soose yeeg ñëpp a taxaw si combat bi séeréer yi barki Serigne Touba loo yëg fi mu ne nii waaw sant yàlla ak yonent bi rek def nañ li ñu war a def yëpp entraîné nañ def nañ li ñu war sant yàlla di ñaan suñu borom may ñu ndam sa diggante Pape Yékini amoo dara loo ciy tiit ah, tamit xam nga yàgg nañ tay si biir géew nga ñëw di ma nga ñëw di ma interroger naa ma sa diggante yàgg damay laaj ba ngay tiit kii du ma nag moom dafa bokk si yoon bi rek. da nga war a jàll rek jàll daal. incha allahu ñuy ñaan yàgg ñëw rek jaar jaaga. Odi nga li mu ci xam. benn ñaata ak saam ñaata la bokkuñu xam nga kee saam ñaata la yoo kii benn ñaata kon xam ngeen mënuñoo bokk kii xale bu ndaw la day xëy di bëre tax ngo euh, sër 5 heures di bëre ba 6 heures du kon xam nga ko wax bor benn combat jaaxalu ko combat bi nag pare nañ ko ci côté yëpp kii nag. par sept mois lay bëre benn combat kon xam nga loolu loolu mënul ànd moo loolu. parcelle mbooloo ngi noonu gis naa Moussa Dioum maa ngi ñëw parcelle mbooloo mais Ganja Ganja ana waa ñombaat. ñooy foofu rek di la laaj. borom bitante ngi. waaw ak li yow moom maa la bëggal sama bopp ndax da ngaa saf xorom. waa gis nga de dama bëgg mbër mu saf xorom nag. waaw sama grand. ana Bakary Ba. mooy foofu sama grand bi. ñoom Cédric Marcelin du. di leen nuyu ñoom ñëpp di leen bëgg ah, ak ñoom grand Pape waaw. tey wàcc si nga ànd ak Ibou Ndiaye. waaye gis nga mu nekk sama grand. yàlla def tamit ñu bokk écrit mu doon koo xamante ne ndeysaan ma bëggal te yàlla tax. woor na la aw ma lu ma koy ñaanal lu dul ndam rek. te gom naa ni ndam ndam moom nañ ko am incha allah. waaw waaw. moo bu yàgg. barke yàlla. tiit fan. Babacar yow xam nga ma bu baax. kenn du ànd ak man ngay tiit. waaw. da ngay yëngu xam nga ci dara. ndaysaan Pape Yékini ngi noonu kii ma war a bëre ak Ibou Ndiaye Obali ngi nii Pape Kaay maa ngi lay ziar Pape Yékini. ñu ngi lay fay. sa waay nee na combat bi du métti ma da ngaa bokk ci yoon wi rek day jaar jàll. waaw làmb la rek làmb la làmb la ci kanam tuuti la yàggatul. Ah. yàggatul déedéet sa na. non déggoo wax ji a Ndeysaan ama seen siñoor waay ndeysaan Eumeu Sène siñoor ak Mbaye ak njambaan ñu koy sotti leket ga laytan ba ca bopp ba Eumeu Sène siñoor a Eumeu Sène Junior xule lii neex na ndeysaan oh. ndeysaan ndeysaan ew Eumeu si Junior waay ay xulle diggante ma Grand Mbagnick fu ñuy mujj ndeysaan yàlla am nga jàmm. waaw sant naa yàlla bu baax. tey de boot nga say xale comme na nga ko daan defee andi leen ci arène bi rawatina Ibou Ndiaye Obali ñoom Odi ngaa ngi taxaw ñoom Ganja Fama loo yëg. waaw sant yàlla bu baax a baax a baax a baax parce que parcelle mbooloo famille la man gis nga di may dundee ñoom xeebu ma sax mbapat laajal kii ku ci am dinaa la jàppale sonn ci ba yàlla dimbali la ci. tey nag Obali dañ ko indi euh, du du du du yaakaaru bëre simple kese. mais da di yaakaar tamit bëre dóor làmb da koo yaakaar moo tax tey dafa war a ñëw wane loolu combat bi man xam la laa jàpp Yaxya Jóob Yékini la ñu bëre sil lépp loo xamante ne war na ci combat bi def nañ li ci des nag yàlla mooy may ndam ñu ngi koy ñaan mu may ñu ndam waaw parce que xale la boo xamante ne ni dafa war a won nit ñi ne man damaa bokk ci làmb dafa am dafa war a am lu mu war a wane ne tey damaa am lu ma jël si te kenn teewu ma koo kii daa war a ñëw ne tegal fii sa li mooy moom ñu teg ci loxo mu jël yóbbu loolooy wax ji. combat bi de mat si ni laa ci xalaat dañoo tolloo lépp ñoom ñaar dañoo tolloo lépp. naanaanu ndaanaan yaa ngi noonu Babacar Hik. maa ngi lay ziar ci loo nekk. naka yi mbaam nga jàmm. Eh, Galaay Mbaye a ngi nii borom Fass. Babacar mais ci loo ne. nii rek. mbaam nga jàmm. waa ñu ngi sant Serigne Touba naka bés. kontaan rek ndax namoon nañu lu mel nii Covid bi koroon ñu rek dóor lamb ji gauche droite mu dem teer. jël na ko jël na ko na ko oh. bébé guy gi daan na. pokola di ko sànni war ko bës ko. daa mën a bëre xool ko xool ko bàyyi leen ko xel daa mën a bëre te day kii mooy bébé guy gi école de lutte Mor Fadam a yóbbu na pokola ardo daan na ko ama seen siñoor noonu dama ko yéene victoire xoolal lii xoolal lii xoolal lii ñoo bokk école ñoo bokk école ñoo bokk école ñoo bokk école Imor oh, guy gi waay laxasu na ko bébé guy gi waay oh lii daw na yaram xale bu jar a xel la ci làmb xale. ànd ak Tidiane Faye laax Daouda Sandis eh waay. waaye jëlal lii xool ma Tidiane Faye waa Lansar waaye xool Tidiane Faye le professeur Malick Ndiaye 37 bu Ngongu xulle kii moo ne woon duma bëre ah tibb na suuf de Malick Ndiaye bu Siteu taay si nga nekk moom Malick njaay bu Siteu nekk école de lutte Mor Fadam bu ngeen jàkkaar lool xulle yaayey ree yaayey reetaan arbitre baa ngay waaj a soufflé di wax ak ñoom arbitre baa ngay wax ak ñoom yaawu jaala ngi nii taxaw maa ngi lay déggee fii combat noo ko gisee. xam nga combat bi bu si buy asamaan si wàcc sax. waaw dana ko téye. waaw bu deful attention mën naa ñàkk làmb ji. xam nga tey bu si ne. waaw am lu la moo ko may. waaw waaye nag Malick Ndiaye du ragal. am nit ñoom ma daan. waaw man yaawu jaar bu Ablaye Wade. waaw bu sëñ Abdou Karim Mbacke borom. borom ak laa ak Modou Fall ak Souleymane Soumaré Dame Diop. waaw ak Asndo borom Mbacke Samb. waaw ma ak Youssou Ndour. waaw mu daa maa ngi taxaw. yaaw yaaw bari ngay gaay pour man te sëñ Abdou Karim lay yem waaye ñoqli na ca yaawu jaal ne ku daan yaaw ne na ku daan soxla na la Malick bu daa génne xaalis teg Malick Ndiaye du ragal de ee e waay xoolal séeréer si waay ee door na ko ee Malick Ndiaye door na ko de Bou Siteu loolu ñu door dal na de ndeysaan boor yaa ngi julli ñanay julli <laughs> yaawu jaal yaaw bul ma jàppulu ndeysaan ndeysaan eh e waay Bou e eh, Malick Ndiaye daw na jëli ko wala Bou Siteu ko jëli Bou Siteu yooru na Bou Siteu nga yooroo wóor na jàppante mbaar Malick Ndiaye ngay dóor ca faar ya mu ngay dóor Bou Siteu ca faar ya ca faar ya ca côtelette ya mu ngi koy dóor hee Bou Siteu ku daan ku daan lu xew eh Bou daan na ko dóor ko Bou daan na ko Bou Siteu daan na ko Bou Siteu xoolal mbooloo mi buuse buuse ta daan na ko ewa xool mbooloo mi man ma ko bu joxee. dara du ndaw waa kër Siteu ngi. Siteu la. waa kër bu Siteu ngi. si. si. Siteu la. parle parle parle. ñoo ñooy waa kër bu Siteu. maa la maa la ëpp ndam ëpp la victoire. barke Seydina Muhammad maa la man barke Rasulullah maa la man defoo lu ma deful sama avance boo ko lekkee la maa man man kala man maa la man man kala man bu baal tu kaay. kaay kaay. kaay. kaay kaay. kaay ma jox la. bu nekk nga xeex. kaay du ay nga xeex. kaay kaay. bay jàmbur rek xamal Pape Sarr mu mel ne Eumeu Sène ñëw na ci xew wi. Mhm, ànd ak dafa sedd. li ma si gën a neex mooy dafa dugg si gise bi jënd ticket. Eumeu Sène daa jënd ticket. waaw daa jënd ticket. lan a jënd ticket. dañoo jënd ticket dañuy jënd ticket sa présence fii lan moo ko waral. waa maa xew ndeysaan Pape Sarr mooy Eumeu Sène Eumeu mooy Pape Sarr. lool rek la. waaw tey dañu koy yaatal. tey moo tax nga yaatal ko tey. tey kay waa mais gis naa ko sax mu fecc mu mel ni yow yaay fecc ci géew. mais ñoom ñaar samay rakk lañ nekk. waaw Pikine ak sama turandoo ñu bëree turandoo daa fort. Eumeu seen a ngoonguy ñëw ànd ak Pape Sarr ak Lanjang ndeysaan Eumeu Sène a ngi noonu Eumeu Sène a ngoongu borom Pikine a ngoongu Eumeu Sène ndeysaan Doudou Sané Ibou Ndiaye jël na droite bu dal <laughs> wallahi li du lambi simple de Ibou Ndiaye droite boobu nga jël dal na de Ibou Ndiaye moytul Pape Yékini de waaw ah, baax na droite boobu mu la door dal na lool sax Ibou Ndiaye ndax xeeb na la arrangé te kii pied gauche la tegal pour nga dem songi ko day jafe de dara xewagul de xulle dara xewagul de gis nga Pape Yékini daa mel ni moo dàq xeex Ibou Ndiaye mu ngi koy dóor Ibou Ndiaye jël na ko daan na ko aaway ah amul coono daa bëgg mu xeex mu xoolal lii amul coono jëlal xool Obali eh woy waaw waaw ndeysaan wallaay Obali ngoog oh. waa ñooy doomu Pikine njabootu Ama Sarr tey ci kaw tey ban boo ci delloo rek yaram tey daw. gannaaw sonn ci ni Pape Sarr mën ci Pikine ci moom la ko doonee gannaaw bu sonn ci Pikine ñu koy ñaanal fu mu tëdd yàlla ko yàlla yërëm waaw ñàkk nañ koo xam ni beneen affaire la quoi bi moom di def lu ñaanal ko. mais ama dinaa la laaj tey ama seen boo xam ne tey dañ koo gis yaramam tàng lool lu ñu gën a gis ci yow. Ah, forme bi forme bi doy na waar. doole macha allah fecc bi nga fecc tey lan la loo yëg. lan moo la yëngal ama seen. dama naan para ah, tubaab dellu na Paris. moo nekk nii. da ngaa ñibbi si li nga moom. Ndioguène moo ñëw. xanaa daa am luy su ma nee yàlla kobale rek séeréer yi nañ xam. yàlla kobale waaw. waaw ah, moo ngi noonu. mais tey fecc nga de. yàggatul jàmbaar. naa la incha allah ci kàttanu yàlla. làmb dama ko doon ñaari côté. ci wàllu joolaa ci wàllu séeréer. Ah. mbër. yàlla ñu yàlla may fan gudd ak wér. ba combat yi ne kanam ñëw. mais Pape Sarr a la. dañoo bokk ndey bokk baay mu sama gaañ. jàmbaar. fan si yëpp nañ kontaan képp kuy bëggee Eumeu Sène ñu jàpp ni yàlla ko yàlla ko bële ñëw na. sama ñaar rakk ñooy bëre Ibou Ndiaye sama rakk lañ lamba fit la lan parce que loo lii ah lii coor a ngi. damaa doon nekk roi des arènes. ndeysaan. bilaay walaay. lu yàq loolu. Malka lu yàq loolu. Oh. Malka yaram wa taw na. Malka jom rek moo des. ndeysaan. sama ñaar rakk ñoo ñëw fii. ndeysaan. kii ak kon lamb lii dañoo kontaan parce que ay bëri séeréer rek ñooy bëri tey ñu leen di ñaanal ñu am ndam bilaay walaay dañoo bokk ci làmb bilaay fekk moo des mbir fay ba soo mbir fay maa luy jël ma mbalka yow jël ma mbalka xule kii mooy mbalka maa Malcolm Mack. non sama frère sama doom. waaw waaw damaa kontaan. kii bu ñëwee jàppale la tey looy yëg tey looy looy yëg. xool dafa seet Babacar. Babacar lépp lu ma la wax sama xol laa bee dama kontaan. Babacar séeréer si yëpp jooju suñu sama ginnaaw aw ma droit tey caaxaan su ma defee erreur rek. arrangé wu ma xoolal li yëpp ba fële billahi wallahi talaay te incha maa ngi ñaan yàlla may ma ndam ci barke Cheikh Saad Bou. sa xel na. sama xel dal na bu ma gisee sama gaay yi dama kontaan sama xol laay waxee. ñoom Doudou Sané. billahi wallahi. Mbalkama ak ñu ñëw ñoom Cheikh Tidiane. Nateur ñoo ñëpp woo nañ ma. ndax boo man deret bi xam ne seen deret seen xarit moo xewle mais nag kontaan naa. jaajëf jaajëf grand siyaar naa la bu baax mbaa am nga jàmm waaw sant naa bu baax ana waa Laañaar ak waa Jurbel ak la ko war Laañaar ak waa Jurbel rek ñëpp a ngi fa ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm ak waa Géejawaay ñëpp a ngi fa tey noo dikke Marley comme ni daan dikkee rek ñëw am ndam inshallah ñibbi sa xel dal na fi mu nekk nii non sama xel ba mu ba mu dalee mooy ba ma jëlee combat bi que nee ko ñu bari dañuy coow mën a bëreem am ñu bari jàpp ne njool la tey lan mooy arrangé Mar Marley ci bii bëre dafa mën a bëre dafa njool. waaw <laughs> ah, loolu dara ndaanaan la ko séexal waaw ah, yàlla baax na ko. combat mën naa gaaw. moom laay ñaan de mu gaaw. mu gaaw waaw. Ah, ma gaawee dina la arrangé dama ne moom bu yéexee baax na bu gaawee baax na mais dama ne moom laay ñaan mu gaaw. <laughs> bël waaw xam nga rek dañuy jéem rek yaa ma gën a xam suñu suñu suñu bi maam Sèvres mooy fent yooyu noonu. waaw mais daal tey dañoo ñëw ak beneen façon daal waaw parce que dafa am lu ñu lu soxla tey moo tax waruñoo ñëw tey di asaaloo dara lépp lu ñu war a def rek tek ak teel a war a doon. mais est-ce que fi nga jóge ku ne xam na Marley fi mu jóge nga ñëw ci combat bu toll nii tey lan moo war. waaw moo tax ñu war a def tekk def teey ndax ndam rek moo ñu arrangé si combat bi amul leneen luñ ci arrangé lu dul ndam ndam rek ba ci kanam. waaw ba ci kanam incha allah. arbitre baa ngi wax ak ñoom Eumeu Sène moo féete à droite Calme Ndour di Grand Mbagnick à gauche arbitre day soufflé soufflé na Grand ngay arrière ñaan taxawaat tibu suuf raxasoo daal bees ñuy léewtoo Eumeu bi mu fi mu ndam la fi jële woon Grand Mbagnick daa bëgg a moom daa bëgg a moom daa bëgg moom Grand daa bëgg a moom Eumeu bañ na loola xeex jàppoo Eumeu loolu Eumeu Sène mbaa buñ la dajalee dina baax ci yow Grand Mbagnick takk daa mel ne koo bëgg a sol takk mu ngi lay mu yokk ay loxoom Eumeu Sène moytul kal bi danga Grand Mbagnick daanu na Eumeu Sène na ko waxoon naa la ko ay xule Eumeu Sène na ko xale yi bàyyi xel dee ko jaay doole xool entraîneur ba eh waay waaw naa la ko bilay ku jar a bàyyi xel la école de lutte Mor Faram tey ñetti victoire Grand Mbagnick am na lu ko pet billaay am na lu ko pet xamul ki dafa waaru yaayey jàpp say loxo boo xoolee da koo sol di jóg ak moom mu sotti ko bàyyi ko mu surux da koo suruxal xulle lii mooy surux ama seen siñor daa daa bàyyi xel ci làmb maa la wax lii ñu daanee kalma nduur ba tey dul saane àndatul ak sagoom lii mooy àndandoo bu dëggu ndeysaan oo oh, duudu ndeysaan yaram wa tàng na lam da joofu yoor c'est que Grand Mbagnick kim doon bëreel da koo desee xam ndeysaan bu leen ko laal de moytu leen day daanu de wóorul de mu ngi daanu de oh ndeysaan waykat baa ngi koy way oh ndeysaan oh man dinaa ko jéem a jege ba xam ndeysaan oh oh mu ngay dóor boppam mu ngay dóor boppam gaay poñe nañu ko oh. def ko. non suñu suñu sénégal suñu def ko. ndox mi baax na ci. non non mu def ko man ndox lañ ci def. yónnee naa ndox muy ñëw. bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko. gharama zikafu buye na ah, utamitu parce que biawa itamit rek na na ilo yake ande kay so na wax ak moom noonu international maanaam def live Mbaye Diallo maa ngi lay bëggee borom Pikine def maa ngi lay ziar borom Canada ay ta Babs ñu ngi lay delloo ziar bu am nga jàmm sant bu baax a baax ana waa Canada ñu ngi si jàmm bu wér a wér yaa ngi bay sa waar ci làmb mbaa xam nga loolu waaw waaw waaw waaw sànq nag bu ma wàccee ba gaay jël ma xaw naa am sa impression boobu xaw na ma bett waaye en même temps bettu ma tamit waaye rek sant yàlla bi nga xamante ni vraiment ñu ngi liggéeyal waa làmb daal. alhamdulilah. parce que tamit boo xoolee laay fu def gaa yëpp dañ koy bëgg di xool parce que ay làmb rek nga fay xool te ñun sunu làmb ji dañ koo bëgg. mais yow Sénégal nga bu nekk à l'étranger mais di dundal sa culture foofu nga nekk loolu di lu am solo. dëgg waaw xam nga ñun ay sénégalais la avant tout te soo xasee bu dem bitim réew maanaam comme ni ñu koy waxee picc mi ngi ci kaw waaye xol bi yëpp ak xel bi mi ngi ci suuf su ko defee da ngeen ay wétulu làmb wétulukaay lay nekk waaye tamit da lay jegeloog senegal moo tax soo ñëwee ñëw tey stade mun naa fi nuyu nit yu bari waaye nag liggéey bi du mën kase yaakaar naa ne diaspora bi ci bopp dañ ciy gis seen bopp ndax tey soo xoolee ci live Instagram yi nga xool ci maanaam làmb nu muy demee diaspora am nañ ci doole bu solo quoi. macha allah am na solo kontaan naa ci. alhamdulilah Bab. ana madame ñëw na. mi ngi nii sama soxna la. ah madame a ngi toog. mi maa ngi nuyu ñaari soxna yi. am na solo ñu ngi fay. jaajëf sama waa ji. ala DG ah. sec DG maa ngi koy nuyu. ak waa Equivox yëpp. jaajëf waay. Bour Sine maa ngi lay ziar. Babacar maa ngi lay bu wér. tey bés bi waroon nga bëri si sa adversaire na fi noo dundee affaire bi. waaw métti na ma nag parce que bëgg ma xoon nii mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam. bu ma sañoon heure bi fekk ma si biir may yëngal jàpp daan ñibbi yóbbu ndam li bawal lool la bëggoon si kattanu yàlla mais xëj na nii la ko yàlla boogee quoi maa ngi ñaanal bawal bawal yi ñu bañ a découragé xam ne ñun lam mooy suñu yëf mooy mi métier affaire góor yàlla te ñu ngi si par fii ak deux mois wala trois mois même bu dul mobile beneen adversaire promoteur bi ñu ngi négocier ak moom beneen adversaire pour ñu bëreek moom quoi a ak trois mois wala deux mois loolu la ñu nekk fii mu ne nii. promoteur bi keroog dalal naa ko mu ne adversaire bi dalaa ñeme waa waaw loolu waxu promoteur bi la mais man du ma jàpp ne sama góor ak morom ku jël sa avance rek ñeme na la man bàyyi naa loolu léegi parce que bu njëkk da doon jël avance naa maa mon di wala lii ku jël sa avance rek mën na laa daan loolu laa jàpp léegi léegi am na am lam am nañ sa expérience parce que xam nañu ko xam nañ défaite xam victoire xam nañu lam fi mu fi mu ne mooy loolu jaajëf grand. Adama Diouf wuli bañ na de wuli bañ na de wuleen koy door wuli daan na Adama Diouf Adama daan na wuli Adama daan na wuli Adama daan way ee Adama daan na wuli e e xule door na ko waaye terewul rek ho ho ho waay wuli daanu na waay le futur maire de Réfane daanu na waay ay waay lii moo neex oh ñu ngay xeex wulee ngay xeex ak moom ñu ngay xeex doomu pikin waa doomu Pikine ak Kër Massar waaw doomu mu mel ni daa mel ni dama for ci wowu béy kan da ngay waaju dugg ci lamb ji comme promoteur waaw waaw loolu am na waaw yàlla def na dagg nañu suñu licence ñoo ngi am combat yu ñu doon dox mais yàlla mi dara tawul ñëw dugal mbas mi bi mu dugalee mbas mi nag ñu taxaw Ousmane Baye xaar mais am na ay combat yu ñuy dox xam naa ay fan yu néew incha allah duñ ci xam dara waaw soobe yàlla. kon saison bi ubbi ni naroo cee taxawal ay combat waa ci noonu mën na ñoo ngi taxawal ay combat am te dañ ko jëm pour déwén ñoo ngi waaj ay combat yu ñu war a taxawal pour jëm saison déwén incha allah buñ ci yàlla yóbboo jàmm a bëgg lu ma tax dugg ci làmb man doomu réew mi ba pare làmb suñu cosaan na suñu sport national la tey ñun dañu bëgg da dañu juddoo ci gox boo xamante ne goxu làmb la muy Pikine tey bu ñu bëggul làmb dañu ko war a laaj tey champion yi takk ngemb Pikine yëpp ku ci nekk ñu ci ëpp ànd naa ak ñoom ba ci ndem si yàlla Tyson Junior ñoom ñëpp keroog bi muy daan ambulance Amadou Bari maa ko yóbbu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba Eumeu Sène bi muy jël roi des arènes maa ko ba ci combat bu mujj fii ci arène kon su bëggul làmb dañu war a wax ak man waaw dañ ma a laaj loolu. kon ñu ngi lay wa sahlan dalal ak jàmm. waaw incha allahu rabi en tant que promoteur. incha allahu rabi yàlla na nga boo ci duggee. amiin yaa rabi ñu bokk ñun. yow sunu frère. loolu yàlla def na ko. yàlla sa jàmm yaa. amiin yaa kontaan naa. Aliou baa ngi waaj a soufflé kenn du Aliou moo a solal tey eh waay décoré la Lamsar la jógee. ne Corel la ngi dox ci koom Marley demee wet door na mu jël ko Marley jëli na ko ne Corel ëkk na ko sol ne eh Marley takk na ko de ne Corel la nga koy door ca xabal na ko caxabal na ko oh Marley daa bëgg bëree ba gaaw caxabal yokku mboot mbaar na ko mbaar na ko Marley bañ na de ne Corel tegal bëre ci yoon wala Marley koy teg yoon. caxabal caxabal oh la yokk na ko takk ba dëgër na la takk na ni kuréel eh waay ndeysaan Aliou Sall ca marché Thiaroye borom yére yu baax yi Marley takk na ne kuréel ana Adama Ndiaye Italie bu kenn jaawale lii caxabalaat na ko day bañ day bañ caxabal. sotti mu bañ njool la caxabalaat marla doo war leneen caxabalaat mu sotti ko mu ngi ko bëgg a yokk mboot jeex mboot ca suuf sulli na ko war na ko ndombo marle war na ko marle daan na ne kuréel oh! lay siyaar maa ngi lay fay euh, père defe naa ne ci kërug làmb nga bokk xam nga lan mooy bëre Marley Marley ak Néekorel façon bii ñu bëree. ba kii di Marley am nam ci kaw Néekorel lan la. waaw xam nga l'expérience fait la différence boo leen xoolee ñoom ñaar ci wàllu xam-xamu bëre cinquante cinquante la waaye am na ñoo xamante ni jàppoon nañ ni ko Néekorel moom mooy favori waaye ñi am xam-xam xam nañ ni niveau bëre yi soriantoo wuñu tey nag li feeñ mooy xam-xam moo génn ak vivacité ak rapidité tey ni ko réerle dafa jël bëre bi bàyyi koog marle Marley déterminé wu lépp loo xamante ni moom moo xew ci combat bi daanaka moo ko def moo putuxlu moo jëli moo kal moo caxabal moo rocci ba jëlaam kon tey ki gën a indi ay moo gañe loolu moom moo tax bëre Mm-hmm. tant que jeexul weeru koor la tant que jant bi sowul rek juugu du wees. que tey amul ñu am lu leen bett. bari na bari na ndaanaan yoo xam ni jàppoon nañu ni ni ko réel mooy daan mais ñi nga xam ne am nañu expérience ci làmb jàpp nañ ni combat bi cinquante cinquante la ku ci am faay rek sa morom exploité ko. te man de am na benn plateau bu ñu ma invité ma leen jegeyaastoo bi. na ko réel bañ. na ko réel bañ. marle day dëpp di dippi. parce que ñëpp dañ defe noonu ni ko réel ar arbitre far mu wàcc avancé ci kawam leen loolu la exploité loolu la exploité moo tax bi mu ko defee rek Marley da ko jëli mu ràcc mu tafu ci wet gi mu mboot mu rocceeku lu mu def rek mu dindi ko ba daan ko ci jël kon tey dafay wane ni encore une fois technologie bi dafa baax xale yi jàngi bëre profité ci seen taay di exploité leen làmb jox tey lii nga xam ne moom la Nico Rell la indi xam-xam la waaye le def ko exploité jaay ko rapidité indi vivacité ba exploité combat bi daan ko moo tax euh, tey ñëpp war nañu féliciter Marley ndax def na loo xamante ni ci làmb ah, wax dëgg yàlla mi ci kaw booy yi la jëm si moom Marley. moo doon jàngatu combat bi nga xam ne nii moom moo di ah, euh, Bala Diop di rakku Pape Diop Boston di rakku Mansour Diop numéro un moo ñu defal boobu jàngat waxoon naa leen ko Marley day bëre di dëpp di dippi mbër nag bu dee day bëre di dëpp di dippi yow nga nekk njool xule arbitre soufflé nee ko rel erreur bi mu def bi arbitre soufflé daa wàcc daw uti dox ci kaw marle marle xam ne loolu kon avantage am la Marley daj ak moom tibb tànk bi bëre ji ak moom yem ci ndigileeg tànk yi ba boo xoolee marle loolu la ko daane kon ça veut dire que Marley la ma waxoon ne bëreekat la boo xam ne day dëpp di dippi kon soo ko jegeñee yaa ngi ci dansé mu mel ni kon nee ko rel ah jël biñ la daan tey métti na lool ci sa carrière waaye marle félicitation ku jar a bàyyi xel ku mën a bëre waaye di courage nee ko rel lii mooy làmb lii mooy làmb waaye waa Rent DKR tamit kenn du ñoom jaaraama ñëw bi am na solo ci ay gan macha allah ni ngeen duggee am na solo yal na leen li nga xam ne moom ngeen def tey jik ba ngeen mën ko continuer Alain Jimbo Pape Sarr Jogoy yéen ñëpp yal na seen jàmm yàgg waaye itam di nuyu bës Beuz borom li TV parce que du mën a ñàkk ndax moom moo nekkoon ci wàllum pay per bi kon affaire noonu la demee woon tey gars yi di leen wax ne nag ah ah Aliou bu Yankaaw Aliou bi sëñ Babacar si moom a solal lii ma sol tey yàlla na jàmm yàgg ba beneen yoon incha allahu rabbi gars yi ba beneen yoon mu wuy sama DG may woo.